set dafa jiitu lépp set moo jiitu lépp. wàllum set ak setal di luñ soxlawoo ci doomu aadama bi rawatina ci nawet bi moo xam ndox yi taa ci mbedd mi la wala mbalit yi ba ci sax poubelle yi askan wi nag di ci joxe seeni xalaat ak ban gis-gis lañ ci amee mu mel ni nag lu ci ëpp seeni xalaat méngoo na bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu. ndax set moom daanaka dafay jariñ dafa bokk ci yenn hadis sax dañu wax ne an-nazaafatu minal iimaan minal iimaan sax hadis am na ñoo Eh, yanoon na maanaam. lépp lu salte am mënut a nekk julli mënut a nekk njiit salte mu baaxu ci lenn ku salte ku ne dangaa dañ la war a sori Sëñ Tuubaa bindu ko fenn bu fenn salte salte moom ku mën a doon maanaam dara du la jege dara war la jege ndax boo saltee doo mën a julli doo jiite mboolo askan wi li ñu war a doxal lépp doxaluñu ko ndax da ngay gis koo xam buntu këram du ko defar la fa baaxul ne mu sam fay band ngir bañ ko fa jaar. xam nga kooku kon mal civilisation foofu la commencé ndax aw yoon kenn waru ko waru koo baare te da ngay dox ba yàgg nga gis foo xam dañ fay baare ay pono baare fa ay ay bant ba kenn du fa jaar nga xam ne yow booba yow yow yow muy dox sa tànk doo mën a jaar fulu ci biir ndox mi ngay jaar sëriñ bi moom di xam le ne cet gi ci jikko war a commencé laata ñu koy jëfee ndax set luñ taamu la ci doomu aadama rawatina ci nawet bi xanaa raxas jikko yi jikko yi moo salte jikko bu salte xool salte yoon wa salte la mu jëf salte lu mu fu mu xëpp salte jikko mooy salte jikko jikko yooyu yàqu ku la xamante ne lu ma jikko ñoo jikko ci bopp ñoo yàqu jikko ñoo bu yàqu lépp yàqu askan wi gën a yaraat seen bopp rek xam ni bu fekkee dañoo teg popel euh, ku euh, jëfandikoo ba na fa dugal ci loolu day tax set yomb waaw tuur ndox ci waa ci mbedd yi it euh, xëy na assainissement bi moo des rek waaye nag loolu gënul moom set day tàmbalee ci xol xol bu setee dana yomb danañ setal mbedd mi ak kër yi kon man sama bopp laay tàmbalee maa ngi ñaan di ñaan mbokk jullit yëpp ak mbokk taalibe yëpp maa ngi ñaan di may lii may wax képp koo xam ne dégg nga ko na nga bokk si xeex bi na nga ci jàpp ñun ñoo mën a defar suñu réew ñun ñoo mën a defar suñu dëkkuwaay ñun ñoo mën a defar suñu gox goxaat kii moom mel ni kuy feeluy waxam jëmale ko ci xale yi jaax ci mbedd yu salte yi mel seen i waajur duñ ko yëkk ak it di gën a ñaax parent yi ngir ñu gën a farlu ci ñoom ak it poubelle yi nga xam ne mi ngi ci mbedd yi te dara waralu ko lu dul gën a yokku set gi waaye itam di ñaax ñi nga xam ne dañuy yore jumtuwaay buy mën a indi mbalit ci dëkk bu sell bi di Touba di ko sànni ci yoon yi te gis poubelle yuñ ko mën a sànni moo xam ay mbuusi ndox la wala yu mel ni moom. gis salte di ci jaar moom du maanaam du ak boo gisee salte moom da ci dëgg-dëgg boo amee xel da nga ko war a teggi loolu mooy li gën a jaadu xanaa gën a yeewar askan wi gën leen a soññi gën leen a ñaaxaat rek xale yi tamit loolu tamit seen parents yi ñoo war a sàmm seen doom yi dégg ñoo war a sàmm seen doom bu baax a baax dégg ñoo war a sàmm seen doom bu baax a baax ndax xale xamul dara lañ ko xamal rek la xam xale xamul dara liñ ko xamal rek la xam kon kon loolu parents ñoo war di góorgóorlu seen i doom bu baax a baax bala ñu war a def ñu ñu ñu toppatoo ko seen i doom moom moo gën a baax. yar moom euh, daanaka mooy tax nit baax waaw gën a yar gën a farluwaat si ci njaboot gi rek ak ci mag ñeeg ñëpp ndax yar moom ci ñëpp la baax nit moom daa war di euh, war di yaru ba keroog muy a àddina sax. sëriñ bi moom di gën a jëmale ay waxam ci côté mairie bu Touba di ñaan ñu gën a yokk seeni taxawaay ci ay matériel yu askan wi di soxlawoo ngir gën a setal dëkk bu sell bi di Touba. li ci ëpp ci jikko yi la waaye tamit des na ci maire yi parce que maire bi liggéey lu mu war a liggéey tamit ndaxte poubelle yi amul ci marché bi foo amee buub tey boo ko seen tey boo yoree am buub tey moom foo ko sànni xam nga loolu kon defoo defoo maire la maire moo war a jàppale askan wi def seen liggéey. koñ bu ñu teg foofu poubelle boo xam tey tey comme par exemple tey boo faree mbuus sànni ko ci biir biir poubelle boobu. ak lu mën di xew askan wi yeewoo ci dëkk bi sell bii di Touba di gën a ñaax nit ñi ngir ñu gën a farlu jëmale ko ci wàllum cet gi ndax bokk na ci liy gën a yokku wér gi yaramu doomu aadama bi. waaye ngala état bi el mënul ñàkk bu bu ñu demee ba ba takku ne ci di bay suñu waar di di bëgg dëkk set état bi tamit lam ci mën na ko def gëstuñu